jërëjëf mbok internetu ba du 100 pour cent découverte TV ñu ngi am ci contenté bu baaxa baax delu si ak yeen suñu jotaayu lamb tay ñu wara waxtane lamb abo falaay jaaree char la ngeen nuyu mbokki internet yi du ñu ngi lay fay di sant yalla bu baax rek di julli ci yoonte bi di sant suñu ñaari waajoo di ñaan yalla rek ñu bañ fay wax lu ñuy xébé di nuyu monde lamb yépp di nuyu képp ko xamante da ngay seetaan lamb rek ñu ngi lay nuyu di wax suñu mbokk internetu Badou 100 pour cent découverte TV dañu abonné ci chaîne bi parce que 100 pour cent làmb nga fiy dund Badou. 100 pour cent làmb nga fiy dund Abou tey ñu war a waxtaanee open press Niang bu ndaw ñu gis Niang bu ndaw bu def open press géejawaay gépp wuy si ko les autorités rawatina ay mbokki mbërëm seen naa fa Fils de Balla seen naa fa Jackson seet naa fa Alioune Seye numéro de su ma limee danaa lim waaye du ma matal seen fa ay ndaanaan yu bëri ba ci biir guy gi bi nga xam ne nii bëri na da yàggul seen fa ay match ah seen fay doomu ndeyam ay xaritam ñëpp ñëw dooleel si ko di ko pousser vers la victoire. Badou Badou Badou Badou Niang bu ndaw champion la champion la boo xamante ne nii Badou kenn mënatu ko naataale ci làmb Badou tey xale bi tey ni ko ni ñu ko génnelee ni ñuy ni ñuy génnelee Balla Gaye numéro de lañ ko génnelee ni ñuy génnelee guy gi lañ ko génnelee. ba xale bi tey ni ñuy génnelee Sa Thiès lañ ko génnelee ba du dama ne sax xale bi est-ce que tey ñëw bi ko gars yi ñëwul duñu def pression ci komba bi. parce que Badou tey ni ñu ko ñëw dañoo génn en masse Badou Badou bul fàtte ne premier magistrat de la ville Ahmed Aïdara dafa ñëw per Diaw. ñëpp ñëw di pousser xale bi vers la victoire. ba di xale bi nag ma gis si moom lu doy waar Badou. ma gis si moom kanam gi ngeer Mhm. mu leer na la Badou kii dafa daj ay coono Badou. Mhm. dañ ne ay coono yu métti ci combat yi parce que combat bee ni mel Badou. Mhm. Badou ki muy bëreel mooy ndaanaan ki muy bëreel dernière dernière sortie yi performance yi mu jugee. ku booy bëreeg moom. war nga war war nga daj ay coono yu méttee méttee méttee méttee ci combat bi maa ngi dégg sax benn journaliste di ko laaj ne ko ne ko dama gis nga wàññi poids mais Badou mën naa bañ a wàññi poids sax de mën na bañ a wàññi wàññi poids mais coono bu nekkee ci kanam day feeñ ci kanam Badou xale bi bul fàtte ne xale bi ndaanaan la champion la te Badou bul fàtte ne xale bi deux mille dix deux mille dix la ñëw cinq mars deux mille dix sept la ñëw bëri booy jonn jonn mu daanoo foofu ba tey déggaatuwul mu ñëw. te Badou booy jonn boobu noonu nañu def tànk taxaw seetlu tuuti ci moom. booy jonn boobu ay champion yu bëri la daan. Mm-hmm. abu jonn mooy magam. Mm-hmm. abu jonn moomu noonu génération ñoom Modou Awa Tine la mhm. bu fàttali abu jonn moom bi sàlloo jugee Fass dem force tranquille da koo yóbbaale mais ci yaakaari igri Fass la bokkoon abu jonn mhm. amoon taay lool mhm. moo daan moo njëkk a daan moo njëkk a daan ñaabu euh, ndaw ñaabu ndaw di champion boo xamante ne bi mu si jugee dafa daan Tapha Tine numéro trois la daan daan libidoor bu Passy daan R5 def ay jaloore badu def ay jaloore badu ay rëm no badu badu bala bala bala muy rëm sax bala muy daan baru, sax badu bulo la mun ci bulo la daan badu mm-hmm. te badu ni mu daanee bulon te badu xale bi li ci doy war ci bëri moy day téq mm-hmm. xawma ma nga lolum déet day téq te téq boobu noonu xale bi di def bokul nak ak bi super jamono don def mm-hmm. parce que super jamono bu don téq sa loos lay sa loos lay japp rek sulli mhm. mais boo ko xale bi day téye ngem ba pare day sukki day day sukki woggi mhm. def na ko bulon mu rëcc mhm. def na ko rëm mu rëcc badu di champion boo xamante ne ni badu kenn mënatu ko naataable ci làmb te badu loo waxati waxati waxati booy bi bu doxee nga xam ne mbër la badu lan lan moo tax man la booy bi bu doxee nga xam ne mbër la parce que booy bi chaque combat xoolal bi mu bëreeg libidoor bu pasi bi mu bëreeg Tafatine 3 chaque combat badu booy bi day yokku de plus badu booy bi maanaam taxawaayu champion la taxawee badu taxawaayu champion la taxawee. mais nag mais nag mu am benn différence bu ndaw bu mu jógee si ki nga xam mooy Bour Sine dafa wàññi état bi. Hmm. yow loolu nga gis man nag man nag man nag Badou waxoon naa la dama bàyyi jugé ci mbër mi sumee koogul dama bàyyi loolu mais Badou daal ñu jëm ci combat bu doy boo xamante ni Badou lenn rek laay wax parce que xale bi. direction bi ñu ko teg tey diis na lool diis na lool diis na lool. parce que Badou ni ñu ko wuyisee Badou ni ñu ko wuyisee moo doy waar mhm. ni xale bi ni gars yi génnee moo doy waar mhm. bu fàttali géej way gi yëpp dañoo génn tey di pousser xale bi vers la victoire Badou. Mhm. mais xale bi ki muy bëreel la Badou. ki muy bëreel moo doy waar ki muy bëreel mooy mbër la moo xamante foo ko boo ko natt weesu na ko di mbër moo xamante ne Badou xale bi champion la boo xamante ne nii Badou ni mu ni mu daanee boulon ngay xool. parce que bu fàtte ne boulon ci beneen facette la ko xale bi daanee parce que xale bi dafa jàpp ci dafa dafa jàpp ci ci ci li ba dafa jàpp ci ngemb li daw di ko sulli mu bañ. mu daw këf ko bi koy këf ngàdd la ko dóor ci kaw wéeru ko. ko jël bu rëy rëy rëy rëy mais bu ñu si jógee dafa jël rëm. Badou bi muy jël rëm. Badou bul fàtte Badou bul fàtte ne bi muy jël rëm bul fàtte ne ñu bëri dañoo tàng dafa songale rëm Badou. bu fàtte da koo dóor tànk. da ko mm. na ko tànk benn genre njiin ci suuf la ko dóor mais après da ko woggeeg beneen tànk bi daan ko jël bu rëy rëy rëy jël bu amul benn werante waaye man ci combat bi ma ko nangulee mooy armée bu ngéwal armée bu ngéwal armée laa ko ah, nangulee da ko tooñ mais ba batu gos gos badu nag ma la benn affaire bu doy waar badu ci combat bii nii ñaa bu ndaw xaw ma contact na ci combat bi gis naa ne contact na ci combat bi lu doy mais combat bi lu mu ci jël gan doyul ah gis na ko tay muy dóor gan di sànni gauche droite gauche. No baru di esquive Baru nyaabu ndaw bu xexul du gañe combat bi badu nyaabu ndaw bu bañ bu xexul du gañe combat bi badu foog mu fetal jaar non fetal jaar bu ko deful du gañe combat bi badu badu foog nyaabu ndaw fetal jaar ci combat bi bu fetalul jaar du daan Zarko ci bis bi badu Badou Zarko mbeur la bo xamanteni ne bo ñewé ne damay mbapat dang fay fekk lo dang ko dang ko fay fekk ko xamanteni ne béton armé la mbeur la bo xamantene ni tank sono loko ba pare badu Siteu bi mi am ndam ba da ko sonal ba mom ba badu ful fatane ci sar ko ay defetam dafa new ay defetam wul ba badu ay champion ñoko daan lan ni itam jaaxal na ma ci bir ci bir combat bi moy lan manu maanaam waa ji ben mbeuru geejje way ah geejje way nak war eum sen espoir tay lol la laaj ñaa ndaw ma ne ko sa ñetti mentor mhm. ñew nañu réussir mhm. ci Zarko tay yow nga wara a doon kii kay ñentel Zarko am communication bu mu communiqué ak yow sa taxawaay ci bis bi. parce que mhm. dafa war a am nu mu bëree combat bi Badou. Mhm. Badou bu ndaw bu ñëwee taxaw ne damay mbapat si. du du ko arrangé ci combat bi ñaa bu ndaw fetal jaar ci combat bi Badou bu bëggee réussir sarko parce que Zarko ragal na fetal jaar. non non parce que xam la non Badou. Zarko bu ko ñaa bu ndaw bàyyee ci sagoom day naqaree jëlee ci bis bi. Mhm. day naqaree jëlee ci bis bi bis bi lenn rek la ci ñaa bu war a mën a def te ñaa bu dóor Zarko te bañ Zarko dóor lay dem du tax nga réussir bis bi parce que bis bi da ngay lépp boo ciy dem ci biir bis bi. non mais Badou bis la ndaw am. bis jaar non Badou bis bu doy waar la ñaa bu parce que ki ñaa bu ñaa bu ndaw di bëree la ni mel ki ñaa bu ndaw di bëree champion la boo xamante ni Badou daf fi def ay jaloore daf def ay jaloore boo ko déggee mooy ci dernière performance yi mu jugee Badou. Uh-huh. moo doy waar Badou ñaa bu ndaw nag réussir benn combat boo xamante ni ci mooy bi muy daan buur siin. Uh-huh. Badou ñaa bu ndaw bi muy daat buur euh, euh, doole la daanee buur siin uh-huh. xaw ma xam nga li may waxam déet parce que buur siin fi mu jàpp ci ñaa bu ndaw ñaa bu ndaw rocci rocci ñaari loxo yi su si gi taxaw jonn uh-huh. ba pare ba pare jàpp tànk bi sañ xal ko uh-huh. daan ko jël bu rëy rëy rëy mais Badou adversaire yi ñaa bu ndaw doon bëreel ak adversaire bi muy bëreel du ñu benn adversaire bi muy bëreel dafa am ndox te mbër la boo xamante ni Badou boo ko séentoon noor mu ngi sud mbër la boo xamante ni badu ah. ci kaw loxoom day bëre waaye ci ay tànkam day bëre badu mbër la boo xamante nii badu su su su su boppam su la féetee suuf day doy waar parce que badu xoolal bi bi boppam féetee suuf mook bàyyi ma ñoon jël bu rëy bi mu daan bàyyi ma ñoon badu xale bi am na bis boo xamante ne nii ah. bis bi lu koy gañe itam calcul ci lay bokk importance entraîneur ci ci combat bi combat bii nii bu bëri lee entraîneur day perte combat bi combat day am yoo xam na sa biir carrière parce que Badou bul fàtte ne Zarko dafa may chance ñaamu ndaw. Hmm. loolu la bëgg nga xam ko sarko dafa dafa may chance Niang bu Ndaw badu mm. Ndaw bu ko sarko daane du ko wañi dara mm. waye bu daane sarko day ba day yàq Aliou sarko mm. kon Niang bu Ndaw combat bi ni combat la bo xamanteni daf ko bo a def combat addunaam solo bi mu wax indi non mais motax man la badu kenn du ko conseiller pourtant man dégguma won sax loolu mais kenn waru ko conseiller ci combat bi ba dafa am combat yo xamne dang koy beure conseiller am combat yo xamne do ko beure conseiller combat bi ni bu Niang bu Ndaw ñewé ne Ron moma jox li li lay beure badu sarko dina ko daan ba du ko yëg ñaa bu dafa war a dër samp jaaga ci combat bi parce que combat bi nii badu bamba xaaral tuuti bamba ajjuma dañoo war a dugg ci biir combat bi te instant bi yaa ngi dugaat ci ñaa bu ndaw na na na na na gaa yi xaar gaa yi gaa yi dama koy yemale fii <laughs> dayoroo leen waaye dama koy yemale ah, badu bëre bi géej la badu bëre bi géej la bu ñëwaatee vendredi beneen facette laay génnaat ci beneen facette laay gënaat badu bëri bi bul fàttali ne dañ koo pratiqué badu badu bul fàttali yaa mënoon xëpp gàllaaj kon ñaar ñi koy waxtaanee dama bëgg Sénégal ñu bàyyi ñu xel xam ne làmbu rek la ñuy waxtaanee dañuy kaf dañuy ree di waxtaanee làmb kese làmb rek lañuy ñuy topp mhm. di wax sunu mbokk internet badu 100 pour cent découverte TV mhm. nañ ñu xaar mhm. ci suba ci Zarko Zarko lañ bëgg ñëw suba itam buñ si jógee itam boole leen boole waale kalaaf bi nañu ñëpp xaar wax nga dëgg ci Badou ci 100 pour TV kalaaf bi dafa doy waar Badou kalaaf kalaaf bi dafa doy waar Badou kalaaf bi Poutine si lay bëree bu fàtte ne ah mais Badou bu caatu yow mooy Poutine Badou bëggul jàmm Badou Badou bëggul jàmm bëggul salaam Badou mbër la boo xamante ne boo ci da ngay ci mais keneen ki li dem déggal lool ah man dal duma ci débat mais mais mais ku bëgg bëril ci carrière bi ay combat jaar na ci bëri non badu ko ay combat am dara yombul badu ay combat njaay tin yomb ci badu hmm? alburi yombul oh. arobas yombul badu njaay tin di champion bo xamanteni ni yo fi dum dafa am kan dafa am combat dafa am adversaire bo xamanteni limu li mu la ñoom ñaara niroo de ah. ñoom ñaar ni fetal jaar fetal fetal jaar dina tak ah. no badu ñu jëm ci combat bu doy war bo xamanteni badu ah. li ci doy war moy gamu geey ak ak ciatu yarax loolu comme maa njëkkante. non Badou gam gam Gueye itam bu fetalul jaar moom it dina mitti ci moom Badou. attention mbër mi di mboot ñu suruxal la. non Badou yow xam nga li may wax bu baax Badou li ma li li may laaj yaa ma a xam Badou. gam Gueye songukat la. Badou li ci day day mboot. li ci doy waar ci garga deux. Mm. garga deux booy jaxaw. Mm. booy jaxaw daf def ay jalo dóor fi ay mbër ñu daanu Badou. Badou bul fàtte ne booy booy boy jaxaw daf def ay jaloore Badou. daf ay def dara jaloore waaye ki muy bëreel. Mhm. Mhm. dafa dugg ci kalaaf am neuf points. Mhm. daan fa senteel bu Lamsaar. daan fa Adama Diouf ma Mindis. daan fa Ndoof. def ay def ay jaloore yoo xamante ne nii ci. Ahmed Bombardier rek ko njëkk daan Badou ci làmb. di champion boo xamante ni kenn mënatu ko naatable ci làmb. Badou bul fàtte ne assurance moko dan mhm. ak Tyson 2 mhm. mais Badou ki gëna a dan ci lamb moom moko dan muy Valdo Badou di champion bo xamanteni ini Badou kenn mënatu ko natable ci lamb non Badou li Badou li doy war moy moy moy duut sané oh. combat ngi nonu combat bobu nonu dem badu kenn kenn kenn non njar ndéem la njar ndéem la dudu saane njaga dole di combat bo xamanteni badu combat jank la bu don palmarès bu don palmarès la njaga dole du ak bu doon palmarès du bëre ak moom mm. waaye Ndiaga Dolé dafa dugg nee na ci tournoi bi pour jël pour am neuf points eh. moo tax mu jël ko parce que wutal ko combat dafa jafe bul fàtte ne Ndiaga Dolé bëri na ak ay franc uh-huh. bëri ay champion yu bëri yoo xamante ne ci biir carrière bi dafa bëri ak ñoom Ibou Ndafa numéro deux mooy combat fetal jaar ba ñoon fetal ca Iba Mar Diop ba dal nañu gaay xaar. ñu xaar nañ ñu xaar. aljuma aljuma nañ ñu xaar de ñew ci ba waye suba. Hmm. nañ ñu xaar dim ci sarko bi momit sarko yi dem a ñu dabali ci mom parce que lamb dal lañuy waxtane ba Badou. di di santat yalla bu baax. Hmm. di julliwaat yonent bi. di ñaanal sama pap fi mu tëdd gënal ko fi mu jógee di ñaanal sama mag bu jigen fi mu tëdd gënal ko fi mu muy aram waaw yalla yërëm leen yalla xare leen àjjana mboolem ñoom fa fekk ñu fa fekk sunu borom xare leen àjjana ñun ñi fi dess yalla bayyi ñu fi ba ci kanam parce que badu hmm. nañ pare ñu dañuy dem de. nañ pare dañuy dem loolu moo nekkoon tey waxtaan bi ñu leen indil di bëggee képp koo xam ne ni internet nga di ñu bàyyi xel ci Badou 100 pour 100 Découverte TV Abou kan ngay woo tey sa gaañ. Badou damay woo Malick Mbengue Mbor rek Badou. Ah. waaw di woo Malick Meng Mbor bu baakha baakha baakha a baax a hmm. ngi wo maling Meng Mbor bu baakha a ba do dom yaay Alaaji Cuun maa ngi koy wo bu baax di woo soxna son Xayta sek mo talib taalibi Alaaji Baara bi la grande fois nga xamne ne lu mu seetul baaxul badu soxna Xayta Seck dañ koy wo momit di wo sa presi ma ngi dégg rek ñaaw bu ndaw di ko woo mama xey mama xayta non booy mama xayta yëpp ko war a woo Badu ah? Badu xayta Seck bul fàtte ne xadu am na ay mbër yoo xamante ne di ngeen di leen yóbbu Badu Badu soxna xayta sek soxna xayta sek ay mbir la yor de ay mbir la la yor de. man mi soxna Xayri Seck fan yii dinaa ñëw. Ah. parce que dinaa ñëw dinaa ñëw nga yëngalaat affaire yi. wax ju fu ñuy teg suñu tànk. <laughs> ci la bokk waaw waaw. Ah, di waaw di waale di waa di waale mayit Mayib dañ koy woo bu baax a baax a baax di doomu Grand Dakar dañ koy woo. daa nekk tournée fu mu ne nii. non Mayib Mayib Mayib dina ñëw ba. mi ngi tournée mi ngi diggante Turquie Casablanca ah ci ci ci dëkki Maroc yi ndax gars yi yaa ko soxla. ci wàllum décoration bu baasul baaxul Badou. Badou en temps bi may may may ba nga koy toj. mayu nga ngi def lu doy waar ci en temps bi Badou. Ah. di cérémonie boo gis may Mayib la ñuy woo tey temps yi. man man li ma jaaxal fan yii Mayib bees yi mu mu génne. non Badou man man fleur décoration yee may rey man fleur fleur fleur yee may ray oh. ta ba du fleur dafa am solo ci beut waw beut warul gis mi rek. Mhm. dafa war di gis ay fleur ndoxu fleur bobu nonu beut dafa war di gis. parce que day wéral beut day wéral bët Badou. bayu badu dal di wo may di wo sa président Mansour Diop. diko wax ne mu ñew japp ci liggéey bi bu baaxa baru ba baru baax Badou borom été der dañ koy wo di wo Mansour Ba. Mansour Ba di nuyu nag président góorandooy bu baax a baax a baax di wax ne waaw wax ne di wax ne def ci làmb gis nañ ko góorandooy dañ ko war di war dañ ko di décorer chaque instant ci dañ ko di décorer di nuyu Modou Modou Modou fils de ah sama sama sama mentor waaw waaw Modou di ko nuyu baax di sant ñëpp di gërëm di wax ne fi amani laa fi amani mbokk lu si le débrief de l'open press de Niang Ndaw jërë ngeen jëf ba yoon